alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala alfatihil xaatimi sayidina muhammadin nasiril hadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi alazim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 ubbee ko ci sama xol jëmee ko ci seen jëm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu juróomi baat yooyu maa ngi koy jox suñu mbokk ya nekk Amérique di wéttalikoo waxtaanu fajar wi tabaarakallaahu di ko dugal ci seen groupe yi di ko tasaare jaami yàlla yu bari di ca jëriñu ñooñu yal na yàlla fay leen yiw suñu mbokk mu baax ma moo ñu koy jot li sëriñ Amir Niass ni mbokk yi di jëlee waxtaan wi benn jigéen ndeysaan di ko tasaare rek ci groupe yi yal yàlla fay ko yiw fay mbokk yi nga xam ne ñoo koy topp yëpp yiw waaye suñu mbokk yi nekk France sopp waxtaanu fajar wi lool di ko topp ñoom tamit di ko tasaaree ci groupe yi yal na yàlla fay leen yiw defal ko mbokk ya nekk Angleterre mbokk ya nekk Espagne mbokk ya nekk ak Suisse mbokk ya nekk Afrique du Sud mbokk yi ci àdduna bi yëpp rek fépp fu laa ilaaha illallaah xegg rek dafa nekk di wéttali ko waxtaan wi ñu leen di nuyu di ñaan suñu nuyoo bi fekk leen ci jàmm fekk leen ci teraanga fekk leen ci xéewal te mu sax ñi mu fekk ci jaamaarloo ci wàllu kayit jaamaarloo ci wàllu liggéey jaamaarloo ci wàllu yàqule jaamaarloo ci wàllu bagaas yi ñuy nangu yàlla na yàlla soppi ja jaamaarloo googal jàmm gu sax dàkk ci yéen ak ci ñun te saxal ko timit ci borom néegu sëy yi ñii sëy di tuur seen ronkañ rekk mu métti lool léeg-léeg nga daje ca jëkkër ju bon ju soxor du la yor du la fase jàpp ne mi ci ngóora ba bu li mu jaamu yàlla yépp muy ay xaq bu la ko fayee boo muy tuut nga mujj topp ko te yàlla jàngale ci alquran fa imsaakum bi maaruuf aw tasrihun bi ihsaanin léeg nga gis ca koo xam ne nekk na métti na nit a fi ëpp sutura rawatina jigéen mënatut a muñati mu mujj dem ca rajo ya pour ñu weer pour weer boppam pour weer jëkkëram jublu ca maanaam ku ko xettali ci xat-xat bu ne dëgg-dëgg sonn na dëgg-dëgg jigéen ñu bari sonn nañ ci ñi ko yóbboo yëpp mooy góor ñu bon yonent bi dafa daan wax ne góor ñëpp góor gu ci góor gi ci gën a bon mooy góor guy toroxal jigéen góor ñépp góor bi ci gën a baax mooy góor guy teral jigéen bu ngeen gisee ma gën leen du dara dama leen a gën ci samay soxna rek moo tax ma mujj gën ci yéen ndax xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrukum li ahli kon tund woo dem dëkk boo dem mbokk goo dem gox boo dem ka ca gëna a mën a yore soxna yorab lislaam kookaay gën ca gox ba ca mbokk ya ca askan wa ka ca gën a mën a toroxal jigéen di ko maltraité di ko sonal di ko dóor ala kulli kooku mooy ci gën a bon ca askan wa gën a xiis ku mel noona kenn waru ko may soxna te boo ko mayee soxna nga xam ko soxna sa ñëw tawat la ko nga yëg ne lii mënul dem xoolal ñaar ci fameem yéen ci seen ñaar ci famille bi ngeen dajee su ngeen gisee ne lii nekkul lu mën a wéy rek lu ngeen ca dogal yàlla fekk leen ca kon nag ah, loolu nañ ci bàyyi xel alquran jàngale nag ko te waxoon naa la ko ca suratu nisaa yi xakama min ahli wa xakama min ahliha in yurida islahan yuwaffiq lahu baynahuma kon nag loolu jar na bàyyi xel bu baax a baax bari na jigéen ñu sonn seen néegu sëy wallahi seen ronqañ yi ñuy tuur mën naa suur ceeb seen ronqañ ya ñuy tuur mën naa siim cere te rongañ ñu tàng tàng lay doon wallaahi ku ñemee xaq yooya nga koy gàddu kenn gënu laa ñemee yàlla. ak lu say rakkaxa bëri bëri ak lu sa kurus gi gudd gudd jaamu yàlla yi yàlla sant ñu du dara lam ca jublu yëpp bëgg ñu mën a def mbaax rek julli gi ñuy julli yokkul yàlla tus xoor geeg jàng alquran geeg haji màkka yeeg woor weeru koor yeeg lépp lim ca jublu dëgg mooy nga mën a def mbaax ci sa digganteeg sa morom mën a saxal mbaax gu nëbb ci sa digganteeg sa borom yii yëpp ay jumtukaay la ay wasaa'il ya yoo war a jottandikoo ngir mën a def mbaax waaye bu fekkee yaa ngi def loola te mënoo fexe ba def mbaax day tekki ne yooyu defoo ca dara alquran jàng ko lum ca jublu nga mën a wax dëgg xam ne alxuraan lu ci nekk lépp dëgg la ki nga ko wàccee nit ko dëggu la lu mu wax lépp dëgg la waaye sax ci alxuraan di ko jàng yaa dàq kàcc ci dëkk bi foo doo wax dëgg su boobaa sa njàng alxuraan man lu lay jariñ xaadimu rasul wax na ko bayi fen moo gën jàng alxuraan mu jeex waaye boo fi nekkee doo doo wax dëgg tey jàng alxuraan alxuraan ci boppam moo lay rëbbu ndax alquran rëbb na fenkat ya allah laanatullahi ala alkaadibin yonent bi wax na ko rubba qaariin wal quranu yalanuhu bëri na kuy jàng alquran fekk alquran na nga koy rëbb nga téye kaamil bi naan aoudu billahi min alcheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alquran ni la su boohum yow bu ma jàngati sa gémmañ gu xañ gi te li ko xañal mooy ay kàcc li ko xasawal mooy ay jëw li ko xasawal mooy rambaaj li ko xasawal mooy fen li ko xasawal mooy dagg bokk yow aaya boo jàng ci man man ma jàng ci yow yàlla ñaan ko yàlla yàlla rëbb la toroxal la kon alxuraan ba pour war a baxi fen takkaayal sa làmmiñ yu ci dëgg ko tax a jug boo ca nekkee di ko jàng guddeeg ba ca naan tiitaru naan semaine bu ne ma wàccee kaamil ñetti fan yu ne ma wàccee kaamil te lu naqari nit ñi ci sa sa làmmiñ ñu lay baxee ko sa wàccee kaamil googa yaa ngi koy wàccee ci sa kaw te sant ñu wàccee kaamil dafa ñoo sant ñu wàccoo kaamil wàccoo kaamil nag mooy jëfee la ca ne baxi teraya kese jëfee ndigal ya baxi teraya kese xoor gi mu lay xoorloo sa xiif gi lu muy lu muy yokk yàlla tus dafa bëgg comme li nga moom yaa ca sañ woor ba lekkoo li nga moom fi ji fajar xaree ba jant sox nga jàngee ci mokkalee ci taree ci li nga moomut bu ko lekkati mukk ba ba ngay dee lu la léwut bu ko lekkati mukk waaye weer wu ne yaa ngi xoor bët bu set yaa ngi xoor bi tiitaru foo tolluy tafli te foo tolluy lekk xal li jàmbur yi sa koor gi lu muy jariñ tus di tiriyaan nit ñi lekk seen xalal jël xaqi nit ñi di ko dundee jël tàngooru nit ñi di ko seddaloo sa koor ga jëriñu dara ndax dafa bëggee woon nga jàngoo ci sa koor gi ne comme li ma moom laa mën a du mooyu waxuma keneen lim moom demeet loolu nga koy jàngee ci asaka jàngee ko noonu ci xor ci joxe asaka jàngee ko noonu ci xaj màkka ay jumtukaay lañ yu ñuy dimbale pour ñu def mbaax jumtukaay yooye boo ko defee te mënoo def mbaax dafay tekki ne defoo ko wala defoo ko ni ko yàlla bëggee nañ ci bàyyi xel kon bu baax a baax yàlla nañu yàlla dimbale yàlla bëgg na ñu baax bay dimbalante ci mbaax moo tax mu ne yaa ayyuha alladina amanu xee yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm gu wér gërëm ne yàllaay seen borom sayiduna muhammad mooy seen yonantu sallallahu alayhi wa sallam alquran mooy seen téere kaabatal musarafa mooy seen qibla mbokki jullit ñi ñooy seen i mbokk alaykum wa anfusukum jàpp leen seen jàmbur alaykum moo anfusukum téye leen seen bopp waaye téye seen bopp gi ci yahood yi yahood yi bu ngeen leen wooyee ci diina yi ñu bañ a ñëw téye leen seen bopp ci ñoom su boobaa nag laa yadurrukum man la du leen lor mukk ci ñu sànku ca yahood yaag nasaraan yaag musrikuun ya ida tadaytum ndeem yéen jub ngeen ndax kat marjookum yéen ñëpp dama koo qaddam ilallaahi ay ilallaahi marjookum jamian te kat bu ngeen fa yeggee fa yunabbi'ukum bimaa kuntum na la gën doon jëf lépp dana taxaw eh, maanaam moom yàlla solo leen ko kenn du yàlla cër bu ne lëng ca jëf moo koy seede cër baa koy seede moo tax nit bu muusoon bu demoon bay kàcc dafa war a yekki làmmiñam wa dénkaane ko fa muy kàccee ndax bu ko lëggee yi ya làmmiñ waa koy seede soo demoon bay dégg mu jëw ak i rambaaj dangaa waroon a wekki sa nopp yi tayle ko ne li ma bëgg a dégg bëgguma nga dégg ko bëgguma nga déglu ko soo lëggee du ko mën a seede soo demee bay njaalo nga wekki sa awra bi denc ko bu ko sa awra boobu nga doon njaalo mooy seede njaalo ga loo ca man nax ti al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bi maa si yaksibuun kon na su boobaa mënoo ca dara kon yàlla nee na comme mënu leen a fexe ba li ngeen ni def seen cër bu ñu ko fekkee mënu leen a fexe ba bu yowmal qiyaamee seen cër ya buñ ko seede cër ya seede ko cër bu nañu seet not yan ca am ne yow de vraiment ñu doon laaj bët cent mais yow daal trente nga am kon yow échec nga fasal nga ci wàllu bët nopp ñi ngi ko doon laaj soixante-dix mais dix nga am awra bi ñu ngi ko doon laaj deux cent mais yow vingt nga am not yooyu lañ lay jël noté ko yëpp mu nekk ci benn benn benn benn benn këyit ñu na nag jàng ko ne iqra kitaabaka kafa bi nafsika al hasiba nga jàng not ya rek na haa yaa waylata maa li hadha al kitab laa yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mu ngi mel ni suñu xale yi bi ñuy def examen amuñ ku ñuy bind leetar amuñ ku ñuy woo admis nga dañ koy afficher rek buñ ko afficher nga ñëw lire affiche yi jooy te kenn dóorul la mbaa nga lire affiche yi ree te kenn waxuñu lu la neex ngaa gis lu la neex yowmal qiyaam tamit suñu cër yépp cër bu ne not bañ ca am lañ lay afficher nga jàkkaarloog moom yow boo admee yaay atte sa bopp jërul di ko laaj sa professeur bi boo admee yaay atte sa bopp doo ko laaj kenn mu leer naññ kon yowmal qiyaam noonu lay mbir yi demee yàlla ne nag dama bëgg su ngeen sooboo yoonu at mi yahood yeeg nasaraan yi taxaw bëgg leen koo yàqal jàpp leen seen jàmbur kon yéen su ngeen gindee ko ñoom buñ sànkoo du leen wàññi dara loolu la bëgg a wax ci firi mu njëkk mi waaye tamit yaa ayyuha allazina amanu alaykum wa anfusakum yéen jullit ñi jàpp leen njàmbur ci seen moromi jullit yi su fekkee dem ngeen ba gis ak bànneexu bakkan gu ñu topp ak ak àdduna gu ñu jeexital teg ko ci kaw àllaaxira ba bu ngeen waxee digle lu baax du tax ñu topp ko bu ngeen teree lu bon duñ ko bàyyi te dañ la dëkkale foo dëkkut yàq la ci réseaux sociaux yi su boobaa ala kulli haal alaykum wa anfusukum laa yadurukum man dala isa tadaytum waaye waaye kon jàpp leen seen njàmbur yéen su ngeen gindee ko gaa a sànq donte ay jullit lañ ala kulli haal yéen amatu ca benn responsabilité. kon loolu moom laa la taxañal ci firi mu njëkk mi waaye aaya lu xóot a la boroom xam-xam yi wax nañ ci wax ju bëree bëri danaa la wax sababu nusool beeg li ci boroom xam-xam yi wax ak Seyduna Aboubacar mu baax mi ni mu ko firee boo demee Saïd ibnu Jubayri dafa wax ne aaya ji moom ak Mujaahid dafa wàcc ci yahood yi ak nasaraan yi yàlla ne nañ jàpp sum njàmbur ci ñoom seen ak ko te mënum ñoo wàññi dara laaj leen leen galak rek te bàyyi leen fa xudu minhumul jizyata watrukuhum suñ nangoo galak gi daal jël leen ko ci ñoom te bàyyi leen ndax booba lenn ci kufaar yi dañ daan wax ne waaye ñun ñii de euh, maanaam naka la ñuy nangoo ko fekk galaf ci ñenn ci ñun ñeneen ñi tamit joxewuñ ko fa mel ni daal lislaam suñu ñàkk dugg ci moom intéressé wut ko jullit ñi dafa am ñoo xam ne dañuy tatal pour des ak kéeféer bëgguñ kéeféer dara des fi wa qiila inna al muminina kaana maanaam yastaddu alayhim yastaddu alayhim baqaaul kuffaari ala kufrihim rek yàlla ne fa qiila lahum alaykum wa anfusakum taqoo leen seen bopp jàpp seen njàmbur te te woon leer yi baaxal ak ñu leen defar tabaxi ji ndax koo mënul orienté ci li nga ne te boo ko toppee tardé jàppal sa bopp ci moom rek téye sa bopp te bàyyi ko kooku mooy aaya ji boo ko jubalee ci yahuud yeeg nasaraan yeeg musrikuuna yi waaye nag boo ko jubalee ci jullit ñi bu firi loola de Abubakar Siddiq mu baax ma gën a dégg ñëpp alquran benn bis dafa dajale saxaaba yi yéeg ca kaw minbar ba ne hee yéen jullit ñi aaya ji yéen koy firee lu ko taxutoo a jug muy alaykum wa anfusukum laa yadurukum man dalla iza htadaytum mooy jàpp seen njàmbur rek fexee baax ñeneen ñi buñ bonee seen yoon nekku ca bu leen digleeti kenn lu baax bu leen tereeti kenn lu bon loolu aaya ji waxut ko te ñun ngi koy firee moo tax abi bata mu ne laaj naa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aaya ji yonent bi ne ma digle leen lu baax te ngeen tere lu bon itamiru bil maaruf wa tanaahaw anil munkari xatta ida raayta suxan mutaan wa hawan muttabaan wa duniyan muassaratan wa ijaaba kulli fi rëyin bi rëyihi su boobaa nag fa alayka bi xaasati nafsika xaakim moo solo hadis bi mu ne ba ma ko laajee yonent bi dafa ne yéen jullit ñi dee leen digle lu baax yéen jullit ñi dee leen tere lu bon ngeen defal ko seen moromam jullit lu dul ngeen gis ak nay guñ topp buñ demee ba kenn ku ci nekk gën a nay ci ay droit am kenn ku ci nekk gën a ci ay xàqam li ma moom lépp laay jël du ma ca joxe dara bànneexu bakkan ñu jël ko teg ko ci kaw xel te bakkan gumba la xel lumière la ku jiital nag lëndëm ci lumière sànku su ñu demee nag ba jël bànneex bakkan jiital ko ci kaw xel su boobaa rek jël àdduna tamit teg ko ci kaw àllaaxira kenn ku ci nekk yéem boppam ne maa gën a rafet xel yonent bi nee na bu ñu xeggee fii nag téyel sa bopp fexe lu la defar bu sa yoon nekk ci leneen leneeni keneen foofa nag daanaka xalaa kulli xaal xegg nañ fa neexut ba neexut waaye tey li fi yàqu tàmbaleeku ki ñun këru diine yi ñuy sasee na ñoo ñooy këru diine yi waat naa ci yàlla kenn ku ci nekk këru diine ga ka ne la ca nekk lu teguwul ci yoon boo ko waxoon këru diine ga yépp dañu la rendi la waxuma la nag nga wax ko ci geneen këru diine goo ajuwul su boobaa ala kulli xaal ñëpp dal ci sa kaw wax la wax ju bon xëy réseaux sociaux yi sosal la yàq sa der dootoo jëriñe ci dara te la nga doon wax du jëriñ boo yeggee foofa noppi lu mu jëriñati li fi yàqu lépp ku ko bëgg a wax ñëpp génn ci yow te la ngay jéem a defar du defaru su boobaa kon nag faalayka bi xaasati nafsika xam na riwaaya bu ne faalayka bi xuwaysati nafsika foofa lañ yegg tey fu mu ji jamono. bu ñu demee tey nga dégg ci réseaux sociaux yi nit réer mën a taxaw jël ab sëriñam di ko teg ci yàlla ni kenn waru koo comparé ak yàlla jël yonentu yàlla Muhammad mi gën a màgg nit taxaw ne kenn waru koo comparé ak sëriñam jël maqaama ya gën a kawe di daane yàlla di ko wàccee di daane yonentu bekki ay saxabaam di yëkkati ñoo xam ne seen dund bi yépp dañ koo jeexal ci yëkkati yàlla ak yëkkati yonantu bi ak yëkkati saxabaa yonantu bi te ku ca wax dee fu ñu jëm àdduna bu tukki kenn ku ne jéem a defar sa bopp ne naa jéem a baax ñun nga xam ne su ma leen waxee ñi dégg naa wax ak ñoom donte sama ruq ba laa ne su ma leen teree ñi bàyyi ma tere leen waaye nag aw puwaaru sañ-sañu sañe a digal ñépp lu baax kenn ku ne tey foofu nga toll moo tax koo fi tooga ci naan maay sëriñam ñëpp da ngay jay sa bopp neel maay sëriñam benn kuréel wala ñenn ci ay kuréel kuréel booba sax ngeen yaay seen sëriñ ñëpp déggaluñ la foofu la jamono ji toll toll nañ jamono joo xam ne li ëpp dama koy wax ci ji jamono gëm nañu këru diine yi waaye li ci ëpp gëmuñu nitu diine yi ci ji jamono gën nañ nag këru diine yi noo askanee ca këru diine ga boo ko yëkkatee doo ca wéet dañ ca jàpp dañ ca jàppale waaye ñun ñii ñu jàpp ne ñoo huutu tey këru diine yi nekk fa gëmuñ ñu ku ci jàpp foofu ne gëm nañ la dañ lay jay loo ci séq nit bu lay ñaanal lu mu lay wax waaye waaye ñaanal ma ci sa barke maam waaye du wax mu ko ci sa barke gëmul ci yow dara ñaanal ma ci barke maam alaaji ñaanal ma ci barke maam xalifa ñaanal ma ci barke seex al islaam ñaanal ma ci barke ma maanaam diw ak diw waaye du la wax mukk ci sa barke kon daal gëm nañ suñ kër këri maam yi waaye ñun ñii tey nekk fi gëmuñ ñu loolu na kenn ku ne man kenn ku nekk kër ga nga ne am na lu fa ne loo xam ne tey mënoo ca tus dara nga ca mënu boo ko diglee kenn du ko def boo ko teree kenn du ko bàyyi dara nga ca mënut kon gëm nañ suñ kër yi waaye gëmuñ ñu foofu la àdduna bi toll buñ tollee foofa nag soo waxee jublu ca mu gën a defar mu gën a jur yàq ah su boobaa yonent bi ne fa alayka bi xaasati nafsika xadis la bopp xaakim moo ko solo waaye xadis bi nag amaana aaya ji tegtalekut ne ñëpp a war a dumóoyu ci digle lu baax dumóoyu ci tere lu bon déedéet buñ ko defee yàlla fudd suñ digg buñ ko defee yàlla fudd suñ digg yowóot yi daal ak nasaraan yi comme luñ leen waar waar digal leen lu baax tere leen lu bon du tax ñu bàyyi ko nañ jàpp suñ njàmbur ci ñoom buñ demee tamit suñun biir jullit ñi nit dem ba jël bànneexu bakkanam muy kilifaam jël àddunaam jaaye ko àllaaxiraam jël timit xelaatu boppam mu doy ko xelaatu koo ko jox doy ko xelaatu boppam dong moo ko doy yonentu nee na donte le ku mel nii sa mokkam jullit la su ngeen demee ba seq ko mooy lu ngeen mën a bokk ak lu ngeen mën a laxasoo su boobaa fa alayka bi xaasati nafsika tugal sa bopp te lii nag muy bëree bëri xegg nañ fa ci jamono koo fii woo boo ko waxee dëgg mu def la noonu nit ñi daal fiñ toll ku leen di jaay rek yaa ko yor yow da ngaa am bës dafoo moromi gaa yi dafoo seen moroom yaa leen dàq lii ngay guuxi leex rek di funki yàkkamtee niwi rek wallaahi funki rek wal bakkan yee yëpp jëru ko beexal boo deexee danga nga doylu ci niwi waaye ñi lay jay rek ngay ngay ngay peeraka ngay ngay peeraka euh, euh, maanaam euh, di di walaka su boobaa da dangaa da ngaa yàkkamti boo xeggee foofa danga nga doyal waaye nag aay ji teg ci hut ne nañ baxi digle lu baax baxi tere lu bon bu jamono demee ba bu fi la wax boo demee jëm ba yëg ne ñi ma ko séq ci pénc mi li ci ëpp fii lañ ne su boobaa yow tamit nexal ci luy jéem a yëwénal sa bopp tabaleen ndax jamono ji xam na ci loo xam ne ku ko wax du jariñ te du la jariñ dara la ngay wax du jariñ yàqal yàq sa àdduna boo xamul sax mu yàq sa làqira kon aaya jàngoog moo taxoon abubakar siddiq qaama abubakarin as-siddiq radiyallahu anhu fa hamidallaha wa afna alayhi summa qaala ayuha annaasu innakum taqra'uuna haadihi al-aayata yaa ayuha alladiina aamanuu alaykum wa anfusakum laa yadurrukum man dalla idaa ihtadaytum ba mu ko waxee wa innakum tadauunaha ala xayri mawdiciha wa anni samictu rasulallahi salaa sallam yaquul inna annaasa idaa ra'aw zaalima fa lam yaxudu ala yadayhi aw saka an ya'umahum allahu bi iqaabin minhu hadis la bopp Tirmisi moo ko solo boo demee ci kitaabul fitan ci safa 2167 da nga ko ca fekk Aboubacar dafa dajale saxaaba yi ne leen aleykum anfusukum ni ma déggee ngeen koy firee di ko ko pratiquer firiwut ko man maa déggee ci yonent bi mu ne yéen nit ñi su ngeen gisee ab tooñkat muy tooñ ci pénc mi xamalewu leen ko jàpp ci loxoom yéen ñëpp la yàllay duma kon li jaadu xoon luñ gis ci pénc mi lu defuwut nit def ko rawatina manifester ko ci télé manifester ko ci rajo te kat nee na am na këru diine gum askanikoo ci këru diine yu baax yi fi ne la jaadu woon waa këru diine ga xoo ko ne ko lii ngay wax nag di ko jëf jotee hut ak li suñ maam yu baax yi sosee woon kër geeg dara lii sa yëfi bopp la bàyyi ko nag mbaa ñu génnee la ci kër gi ñu def declaration léegi léegi léegi ñu la topp ñépp ñu ne leen ci ay caaxaan ngeen ne ak nag àddee joo ñu mën a indil ak teraanga joo fi mën a indi boo lëggee lii buñ ci noppee buñ dajeeg suñu borom lam ñuy jural moo ëpp li ñu nar a defal kon nag nañ dagoo fii léegi léegi nañ kitoo waaye déedéet dangay ngay toog ne waaye kay comme moom mbooloo nga ko topp gën a bëri te dafay yokk suñ maam bés na nga koy yokk mbooloo nangam ak nangam euh, kooku buñ ko artoo moom mbooloo ma yëpp at artu nekk gannaaw suñ kër maamay doo wàññeeku déedéet maam yi sosee wuñu woon kër gi xumb dañ koo sosee woon dëgg ak leer ak njub ak ragal yàlla buñ ci xamul lu dul benn wéttal doy na yonentu yàlla Ibrahima kat maanaam ba euh, ko yàlla di limal kenn la ko gëmal la ko limal ne moo ko gëm amana lahu luut luut la ne moo ko gëm kese boo ko gisee rek moom la ko gëm nag rek la ko gëm noox lu mu wax ba muy wax résultat am ñi ko gën ñu néew lañ illaa qalilan dul ñu néew kon mbir mi nekkul ci gàññi mais mbir mi mi ngi ci nàññi mag ñi nàññi lañ soxla mais soxlawuñ gàññi kon nag buñ demee ba jamonoy jamonooy gàññi kenn ko ci nekk la nga tibbee fa la neex ñëw indi ko di ko askanee maam yu baax yii waaye waaye waay nañu bokk ci kër ga nañ la woo artu la ne la lii ngay wax tegoo ko ci fenn li nga wax wuuteeg naag njàngaleem maam El jab Abdoulaye Niass li nga wax wuutee naag njàngaleem Seydil Hadji Malick li nga wax jëf ko wuutee naag njàngaleem Xaadimu Rasuul li nga wax jëf ko wuutee naag njàngaleem Cheikh Omarul Fouti wuutee naag njàngaleem Cheikh na Tidiane mi doon wax ne lu ngeen déggati maa ko wax mbaam maa ko jëf peese leen koog sariya bu wuutee waxuma jëfuma su dëppoog sariya maa wax maa jëf. maam xalifa jël wax ja ne alaysa qaala cheyqu fi l ifaada qawlan rawat ulama usaada ida samictum ma minni li fasinu bilsharci falad xaalafa charcu dafanu wa annahu laysa yaqulu gayra ma yuwaafiqu charca wa man lahum tama demal seeti ko ca joosu tulaci bil murhafaati alqutaci ila dima yaaba aqi tanatuci tiitar ba la waay demal seeti ko ca ifaadatul ahmadiya mooy première kàddu cheikh gëñ ko indil ci téere booba kon nag lii mu wax mooy waxi gaa yu baax yëpp waaye nag buñ ca jëlee dugal ca lu ca bokkut ngir bëgg a dund ñi xamul ña topp ca nañ leen artu li ko may fa muy jëm kat kenn du ko mën a dindi te nag ay kàcci bu nekkee liir feraluloo ko ba mu xëy nekk waxambaane ami doom am ay sët ami jarbaat wallaahi ba muy nekk liir wax a ko fi doon dindi waaye bu xasee hegg fii ba jaaw xet ko fiy jëlee man nga wala sax fetal te du sax sax mu jugee ko fi ba jeex kon nag aleykum anfusakum jooju daj na ci suñu dal na ci suñ kaw ñun ñëpp nañ ci bàyyi xel noppi baaxut lu yàq ci àdduna bi noppeeg ñu xam moo ko waral ndax ñi xam buñ noppee ñi xamul wax ñi xamul buñ waxee wax lu ñu war wax bu ñu waxee lu ñu war ta wax ñi xamul dara topp leen ca ndax dañoo nekk ci réew moo xam ne dañoo bëgg lislaam lool bëgg yonantu bi lool réere leen soo bëggee loo réere nag kenn ku ne mën na caa def lu mu la cay naxee di kor yi nax nit ñi rek dafa bëri kon aleykum wa anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum moom la Aboubacar ne li ma déggee ci yonantu bi su ngeen gisee luy tilimal pénc mi gis ab tooñkat wala ay tooñkat yuy yàq pénc mi téewu leen ci seen loxo artu leen mbugalam yàlla ma du ñëw dal ci seen kaw yéen ñëpp kenn mënu ci dara bu ñaareelu xadis bi yonentooy wax yonentu bee wax sallallahu alayhi wa sallama ne itamiru bil maarufi wa tanaahaw anil munkari xatta ida raayta suxan mutaan wa hawan muttabaan wa duniyaan mu asaratan wa ijaaba kulli fi ra'yin bi ra'yihi fa alayka bi nafsika ay fa alayka yaani bi nafsika wada anka al awaama fa inna min waraikum ayaama sabri alsabru fiihi mislu qabadin ala aljamri lilaamili fiihi mislu ajri xamsiina rajulan yaamaluuna misla amalihi lii la yonent bi wax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa di leen digle lu baax te jiitu ke na ngeen koy digal waaye sëriñëb sondeel baaxut niital nit ñi niital nit fekk yaa ngay lakk sa bopp digle lu baax te la digle defoo ca dara di tere bon te la tere bàyyiwoo ca dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kon digle leen lu baax te jiitu la ngeen koy digal tere leen lu bon te bu leen ca kenn gis lu dul ngeen gis ak nay guñ topp bànneexu bakkan bu ñu topp àdduna gu ñu gu ñu gu ñu ëffal ci kaw àllaaxira kenn ku ci nekk yéem sa bakkan kon sa bopp sa xalaat kon nag na la sa bopp doy da ba bàyyi nit ñi seen coow la da ngeen xam ne nekk na ci seen kanam fan wala seen maanaam fan yi muñ muñ kat waraa day firi fa kanam di firi gannaaw ildaat la wa kaana waraahum jële ca kaw fi kanam lay firi waraahu ji tamit ci hadis bi kanam lay firi yéen a ngi dund ca kanam dund goo xam ne muñ rek a ci mën a génnee nit dana tàng dana métti ba mel ni ku banque xalu safara waaye booba nag yéen ñi doon muñ wallaahi danaa leen fay payooru jëfu kenn nit ku taxaw taxawaayu jëfu juróom fukki nit benn saxaabi yu bu xir ne ko yonantu bi benn jëf bu taxawee juróom fukki nit ay jëfam xanaa te ñoom minhum mu ne déedéet minkum ci yéen laa wax payooru nga xam ne yow kon foofu lañ xegg fu mu ne fam fi mu nekk nii ku dëgg ñor xat nga ku mbaax ñor xat nga ku bëgg lu baax dëgg dëgg dëgg dëgg ci ji jamono xam nga gàcc su boobaa nag su la yàlla dimbalee nga am kàdd gu mën a dindi loola nga taxaw ca taxawaay bu métti muñ ak lu la ca mën a dal dañ lay bindal payooru juróom fukki saaba laa ilaaha illallaah booba booba booba payoor xamul ko ko mën a jaamoo yàlla moo tax kon nañ ci bàyyi xel yonent bi ne sama xeet wi ñett lañ ñett ñetti façon lañ mathalu maa baasani llaahu bihi min alhuda wal ilmi ka mathali lxayfi alkathiri asaaba ardan fa kaana minha naqiyatan aa qabilat ilmaau fa anbatat fa anbatat alkalaa wal usuba alkathira wa kaanat minha ajaadibu amsakat almaa fa nafaca allahu biha annaasa fa sharibu wa saqaw wa saracuu wa asaabat minha taifa taifatan uxra innama hiya qiicaanun laa tumsiku maan wala tumbitu kalaan yonent bi hadis bu gudd la dafa bëgg a wax ne li ma yàlla yónni ci njub ak ci xam-xam fa mel ni taw njëriñ lu baax li ma leen indil ci njub ak ci xam-xam ak ci leer ab taw la taw nag saa yu tawee ñetti catégorie suuf ñoo koy dékku xam na ci suuf soo xam ne bu bu taw bi ñëwee lu ndox mi jox rek lu ndox mi lu ndox mi sotti suusa mën na koo naan bu paree mu bijjal ko sax ñax saxi gàncax nit ña di ca jëriñu su ko defee nag xam na ci suuf xeet woo xam ne lu suuf lu yàlla ji taw suuf mën na koo taataan waaye da ko koy denc kooku mooy demee ni géej yi ak place yi nga xam ne day garde ndox su paree nag moom mu gardeel ko di ko joxe loolu nag am ci nag euh, xeeti suuf yoo xam ne mënul garder ndox lu ñëw dem kooku mooy kekk yeeg jànj yi loolu nag mu commencé nag loolu la loolu lépp la dafa bëgg a wax ne am na ñoo xam ne ci nit ñi njub mi ma leen indil ak leer gi ak xam-xam bi mën nañ koo consommer mu jariñ leen waaye mënuñ cee jariñ kenn xam na ci ñoo xam ne njub gi ma leen indil ak ragal yàlla gi ak xam-xam bi mën nañ cee jariñu mais mën nañ cee jariñe ñooñu ñoo taxaw taxawaayu xuur yi dékku ndox mi bu paree dañ sa jëriñu waaye ñeneen ñi ngi say jëriñu ñëw fóot ca ñi ñëw jàpp ca ñi ñëw naan ca ñi ñëw sang ga seen bàyyi ma ya ñi ñëw jël ca déjà arrosé ñooñu ñooy borom xam-xam yu baax yi moo tax ñooñu mu ne ñoo nopp bu noppee euh, maanaam musiba am mu ne naa xam ne ki ñetteelu xeet bi ci suuf xam ne ki ñoo xam ne njëriñ li ma leen indil ak leer gi ak njub gi mënuñ koo jariñoo kekk lañ lu yàlla ji taw taw kekk du ko jëriñoo mënoo faa ji gàncax ba mu sax dañ ñëw rek dem kon nag yéen ñi gàddu njëriñ yi di sëriñ yu baax yi ragal yàlla gàddu ndono yi maam yi njëriñ yi nekk ci yéen su ngeen ko waxut ñu sànku ñu rek sànku te gën bari bëri yéen ay xuur yi de yéen a dékku ndox mi de ci yéen la ñuy sangoo ba set ci yéen la ñuy arrosé suñ mbay mi ci yéen la ñuy fóotee suñ yére yi ci yéen lañuy ñuy jàppee bu ngeen waxut noppi ak ngëneel gu nekk ci yéen ak kàddu gu rëy gi leen yàlla may ñu warut wax li sama maas gi wax te bu ñu waxee wax lu ñu war ta wax te bu ñu waxee lu ñu war ta wax rek lu jur yàq lu fi yàqu ci pénc mi noppeeg ñi xam ak ñàkk a noppeeg ñi xamut moo ko bijj nañ ci bàyyi xel diina ji diinay laay biir la ad diinu an nasiha la yonent bi jàngale woon kon nag ñi xam duñ noppee rek musiba am kon nañ ci bàyyi xel ndax di digle lu baax te jiitu ca tere lu bon te bu ñu ca kenn gis wallaahi gis nga ko yonentu yàlla yi loolu moo doon seen mission yonentu yàlla nooxa ngi nii dafa ne xaw ma kan waaye sama dund bi yëpp danaa ko jeexal ci laahi biir sama nit ñi ak mbooloo moo na a am junney xat yu manqué juróom fukk lépp a naqari risaalatam ga rek junney xat la la ñuy bëri bëri bëri junney xat ya quatre-vingts personnes presque la am lu yàlla waaye taxul mu ne uballiqukum risalaati rabbi wa ansaxu lakum wa alamu min allaay maa laa taalamuun baatab nusxu la jël de ansaxu def ko siiqu mu daario dama cay sax dakk rek mu tegtale ak istimraariya dama cay sax di ci nekk de lu ma ca góobee gar ko kon nañ doon suñu maam yonentu yàlla noox xoolal ni risalatoom nga yàggee ak résultat bi mu am yonentu yàlla Huud ñëw ni man de xawma kan waaye la sama maam noox waxoon laay wax uballigukum risalaati rabbi wa anna lakum du ma wax ansaxu mais naasixun aminun moom dafay indi ismu faa'il moo gën a xoyofle kii maanaam noox ngir ñàkk a yàgg ga ak ñàkk jànkuwanteeg coono ga ak jaamaarloo ga moo tax waxut wa ansaxu mais dafa ne naasixun amin yonentu yàlla saalihu ñëw ne fi sama maam Huud jaar sama yonentu sama sama maam Nuux jaar fa salaay jaar yéen sama nit ñi ñu ne labbayka mu ne wa nasaxtu lakkum indi fi'l ak faa'il waxut naasixun lakkum waxut wa ansaxu lakkum mais wa nasaxtu lakkum waaye nag gis nga gën naa ne walakin laa tuhibbuna naasixiina yéen bëggu leen ku leen laahi biir mais tax ma bàyyi leen ndax ad diinu an nasiha est-ce que lii lépp dafa jar a bàyyi xel. bu baax a baax lii moo doon jàngale mag ñi lii moo doon jàngale yonantu yi ci lii lañ sax dàkk jeexal ci seen dund bi te yàlla wax nañu ci alquran ne dara taxut leen a gën ci xeet yi lu dul sax gi sax ci digle lu baax tere lu bon kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi ñu ne ko ci lan mu ne ta'muruna bil maarufi wa tanhawna anil munkari gis nga ko timit ñaari yonentu yàlla doona wa jaa rajulun min aqsal madinati yasaa qaala yaa nag mbir yaa ngoog abi darda mu ne maa dafa ne woon yow Iisaa danaa yónni sa gannaaw aw xeet in asaabahum maa yuhibbuuna xeet woowa de su fekkee lu leen neex moo leen dal xamidullaha wa shakaru wa in asaabahum maa yakrahuuna ixtasabu wa sabaru lu leen naqari bu leen dalee ñu bu boole koog muñ loola nag walaa xilma walaa xilma loolu duwul lewet duwut xam su ko defee nag mu ne ko nag yaa rabbi kayfa haasa lahum walaa xilma walaa xilma qaala utihim min xilmi wa ilmi mu ne ñooñu kenn mënu leen a dab ci ci ci lewet kenn mënu leen a dab ci xam-xam mu ne ko mu ne nag loolu luñ ko xamee mu ne ko waaw maa leen abal sama lewet ga abal leen tamit sama xam-xam ba moo tax xeetu yontu mënuñu tolloo kenn kon mbir maa ngóog digle lu baax tere lu bon digle lu baax bi tere lu bon alquran da koo digle payoor gu rëy ca ku ca ne bokk ci ñi gën ci xeet wi ku ko wan gannaaw bokk ci ñi gën a yées yàlla wax na ko ci aayaat yu bëri bam ne attaa'ibuuna al aabiduuna al xaamiduuna saaihuuna raakiuuna raakiuuna saajiduuna lu ca teg saajiduuna al aamiruuna bil maaruf wa naahuuna anil munkari wal xaafizuuna li huduudillah fu muy daane wa bashiril muminin tawba 112 waxaat na ko tamit wal muminuuna baaduhum awliyaau baadin lu tax yamuruna bil maarufi wa yanhawna anil munkari wa yuqimuuna salaata wa yutuuna zakata wa yutiicuuna allaha wa rasulahu ulaika sa yarhamuhumullah lu tax inna allaha azizul hakim tawba aaya maanaam 71 boo demee fekk ko ca yàlla waxaat ne wala yansuranna allaha man yansuruhu inna allaha la qawiyyun aziz allazina in makkannahum fi l ardi aqaamu salata wa aatu zakata lim ca teg wa amaru bil maarufi wa nahaw an il munkari wa lillahi aqibatul umur xajji aaya 40 ba 41 ba demee fekk ko ca kon ayaat yi lay yëpp dafa ñuy ñaax ne mënu leen a ñàkk digle lu baax te jiitu ci na ngeen koy digal mënu leen a ñàkk tere lu bon te bu leen ca kenn gis digle moom xamul problème feeg yaa ngi digle xet du jug waaye xam nga fii xet di jógee mooy fu tere tere moom foo ko fekk rek fala fala xet yay wasbir ala ma asaabaka jooju foo ko déggee tere la wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha jooja tamit ca tere ga rek waaye li coow lu bëri bëri bëri dee leen julli xoor leen joxe leen asaka fonk leen seen waajur yi wax leen lu baax ku ca ne xet du jóg waaye tay ay kay boo xëyee tam ne waaye dëkk bi kenn du fi misik xale yu góor yi ñëw luwe seeni baaful wàccee seeni tubéy nga ne misik bi du fi am xet ya jug kenn du fi football xet kenn du fi bëre xet kenn du fi fecc xet ya kenn du fi baal xet ya kenn du fi maanaam wayati wayu caaxaan xet ya jug yenn yi doo ca tere rek tere moo am danse mais digle amul danse moo tax yàlla buy wax tere fa lay wax ne muñul foofa fa la mbir ya ne waaye digle amul amul amul problème jamu ko xeet wu nekk ca gën a sonn mooy ki sol mbubbam ne lu bon du xam ci pénc mi du ma ko fekkee sama bakkan du ko fekkee sama am-am du ko fekkee kooka kuy sonn kooka la gën a sonn yàlla nag loolu la bëgg wal takum minkum ummatun yad'uuna ila alxayri wa ya'muruuna bil ma'ruufi wa yanhawna anil munkari wa ulaa'ika humul muflihuuna dafa ne na nekk lenn ci yéen min ngi mi leen tabciid la yéen ñëpp mënu leen a digle lu baax yéen ñëpp mënu leen tere lu baax lu bon waaye lenn ci yéen laa wax lenn ngeen nag mooy ñi xam ñi xamut génn boo xamee tamit na fekk nga am kàddu ko xamul kàddu génn waaye boo xamee xam-xam te xamoo kàddu kenn dégluwul la boo fi ne doone fi bu leen fi misik ñu xeexoo ba bakkan far des yow li nga tere lim pour moo ko gën a garaaw fecc nga doon tere tey bakkan dee na nga ne kenn du fi football gars yi génnee xet ya rayante ñaari bakkan dee yow li nga doon tere li nga li nga lim jur moo ko gën a garaaw su boobaa yow kenn digle lu wut la dara kenn tere lu wut la dara nekkal ci sa mbokk fa alayka bi xaasati nafsika waaye moo tax yàlla ne minkum lenn ci yéen bala ngaa tere lu baax bala ngaa kon digle lu baax di tere lu bon fukki jikko wala fukki màndarga ak benn moo war a dajee ci yow bu ca manqué bokkoo yow bokkal ca ña ñuy digal bokku ca ña ñuy tere waaye yow bokkatu ña ko ña sañ a digle ak ñi sañ a tere lay tay nag boo gisee penc mi tilim garaaw yi garaaw yi te gi fi nekk nekk fi ñëpp bëgg a digle ñëpp bëgg a te bëgg a tere tey tey la waaraatekat yi gën a bëri te tey la penc mi gën a tilim tey la rajo yeeg télévision yi gën a bëri ustaas yeeg sëriñ yeeg gën a bëri waaye tey la penc mi gën a xajam waaye xam nga ba fi mag ñi nekk booba la waaraatekat yi gën a sëriñ yi gën a néew te booba la til la la penc mi gënoon a set ñooña dañoo amoon melokaanoo digle amee amee amee ndigalal digle amee ndigalal tere. ba lu ñu wax mu am jeexital waaye tey ñun ñi fi des yàllaa ñu nattu au lieu que ñu ñëw gën a leeral li doon mag ñuy jàngal mais dañoo gën a lëmbëmal nit ñi gën leen a teg ak jaaxle boo demee ci kii mu wax la lii nga dem ci kële mu wax la lale nga taxaw kële kee di contre kële kee di contre nàngam ki xamut day mujj gën a jaaxle kon mun au ñuy jàngale mais dañoo ñëw di jaxase li mag ñi waroon leeraloon lépp ñu taxaw te di ko lëndëmal nga dajee koo xam ne mu ne mag ñi yëpp ci biddaa lañ nekkoon gën laa indi problème demeet waaye xam naa daal boo ma toppee suba ci waxtu wi ma wax la yan melokaan la koy digle lu baax ak tere lu bon war a mën a melokaanoo ba tax digleem ga ak tereem ga am jeexital bu ci yooya amul benn jeexital bu ci am suba ci waxtu wi lay doon insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu